l'application yi pas ke parce que euh, protocole bi après mo laaj euh oustad Sall fay faral di wax ni ko xamne nangul lo yalla nee tebeski jot nga dem daral wommat xar ba ñew indi ko teur ko rendi ko nee xar mi bo amone cadeau dina la xol ne la yow sérieux wo deugantane parce que sérieux wo ndax nangul wo te damay faral di wax ne tabaski li ciy aada ci ñun moo ëpp la cay diine la ciy aada moo ëpp la ciy diine jullikaay ba la ñu nekk di taraase sàppa yi benn kilifa ñëw teg ci jaadaam kàbbar di julli ñaari raaka ma taxaw ci wetam ba mu pare mën ne ko jullikaay bi kenn du fi def ñaari raaka da ngay ñëw rek toog mu ne ma fajar la maa julli te beneen bi mooy ay nit a ngi nii duñu julli jàkka waye bu tabaski joté ñu ñawlu daraay 500000 def ci li ci war yépp ñew dem kay ba ca mbolo ma jangu ñu julli jàkka avant loola wa sambe nak dama leen jëlali ndax yeen la fi gendarmerie fekk bisab tabaski ngeen la xulo aw res ñu ngi fi wa Ngor duñ ma wéd oustaz maam Sine ngi ni gendarmerie la mujjee ndax aw res ndax juróom-ñeenti xar la ci benn ëtt ñu di ko wàñña mu manqué aw res juróom-ñeent mu la juróom-ñeent ñu ne ana weneen res wa fekk ku mel ne oustaz Moutou Faka jël ci biir kër gi gendarmerie la mujjee waa Ngor a ngi toog wasalaamualeykum wa rahmatullah kon mbokk yi ñu ngi santaat borom bi subhanahu wa di dalal al imam Moustapha Samb nga xamante ni ba ñuy waxtaan ba bukk si incha allah ñu ngi xamal conférencier bi ne imam Moustapha Sam mooy raisul aïmma wala ulama bi Yoff ba ngay waxtaan ci la dugg kon ni ñu ko waxee woon rek dafa am ñaar ñoo xam ne dañ leen tuddee bis bi muy suñu mbokk moustarchidin wala moustarchidat ak tonton Khalifa Ndiir pour bañ a tardé parce que ñoom dañu am solo ci bis bi kon dañuy njëkk jox kàddu gi tonton Khalifa Ndiir incha allah waa Jaminat ñu koy sant di ko gërëm ndaxte ñu nag moom dafa yàgg lool yàlla yàlla guddal fan ak wér. alhamdulilah. salaatu wa salaam ala rasulillah. mboolem yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi leen nuyu yéen ñëpp di eh, jaajëfal conférencier bi imam Zakaria Cissé eh, imam Papa mi ko doon leeral. ñu ñaan yàlla yàlla yokk seen xam-xam te barkeel yokk seen fan yàggal seen taxawaay seen kanam ñuy gërëm waa Jami eh, comme ni ma leen ko waxee woon rek ngeen ñëwee kër gi di ma seet sa di ma yëgal seen bébét mbir mi wax fa dëgg yàlla man ma lay war a gërëm parce yéenay oote si lu neex yàlla yéenay oote pour jubal nit ñi kon bu ngeen amee xalaat ñëw ne da ngeen ma koy tuddee man ni ma koy gisee moo di ne bëgg ngeen ma jub bëgg ngeen li yàlla na ma si man mu am ba tax na dama leen di gërëm bu baax di leen sant di ñaan yàlla yokk seen xam-xam yàlla def leen ay mag islam ñuy barke ngeen yàgg ñu jiite nangul nangu nekk seen gannaaw ngeen tettañu loolu eh, daal laa amoon si ay kàddu xam ne mënul ñàkk eh, am yàlla doon defal sutura le directeur tonton Khalifa ci kàddu yi rafet yi waaye dal yi ànd ak teggin bañ ko seetee këram itam daanaka rangoñ turu na fa ndax mbolo mi nga xamantene ñoko fekki won ak yene bi nga xamantene mo lañ ko yene kon ni ngi tam di wat suñu benen imam bok ci magi imam yi fi ndax te dafa jaadu conférencier bu jige ci biti ñew ñu xamal ko suñu kilifa di imam ratib imam Mansur mbeng imam ratib quartier mbengeen tan ñu ngi koy nuyu diko ko waccu wayam yalla yalla fayal ko kon incha allah ku ñu jox kàddu gi mooy al imam Abdallahi Samb nga xamante ni moom mu ànd ak suñu mbokk yu tedd yi dayratu mustarshidina wal mustarshidat sànq ñu ngi wax ne ci wàllu jigéen ñi ñu nuyu ci assayda maam xari ñu koy nuyu bu baax a baax ak mbooleem soxna yi nga xamante ni ñoom la àndal ñoom maam baxaw ak ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn bu ko defee itam dañuy wax ne suñu liggéey ak ñoom dafa rafet ndaxte jullukaay bi tabaski ak korite ñooy àndandoo di ko tracé waaye ñu ñëpp dañ seede ne ñoo ñu fay jiit waaye ñoom ñoo ñu fay mujje ñoo ñu fay jiitu ñoo ñu fay mujjee kon bu ko defee loolu nag mu nekk lu rafet loo xamante ne ay ati at ñu ngi koy def ñu xam ne ñoom benn association la boo xam ne bu dëgër la boo xamante ne ñëpp ràññee nañ leen ci wàllu ponctualité ñu leen di ñaanal yàlla subhanahu yàlla na leen loolu moo taxoon ñu ne nañ fexe ba association islamique yëpp ak daayira yëpp gën a ànd gën a nekk benn te malaamix yooyu ñu ngi koy gis kon fale tafaddal billahi samii alalim min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim mbooloo mi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah nu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di jiital sunu nuyo ci aima yi fi nek fa tabaarakallaahu di ci jital suñu wéjur xaaji Mansour Mbeng tek ci sunu wéjur al ustaaz Abou waye tek ci suñu mak itam imam Moustapha sam ak mbooleem aima yi nekk seen ginnaaw yépp ñu ngi leen di nuyu di nuyu itam conférencier bi muy al oustaz al imam Zakaria Cissé xam naa mbokkay rafetal nañ seen ak tànn na pour mu waxtaanal leen ci tabaski ndax Cissé la sant fa tabaarakallaahu ànd ak waa mbuubeen itam mu mel ni yàllaa ngi dogal ñu jël journée bi pare na ko suñu doomu bàjjan mu jël kàddu léegi muy xalifa abu bakar Ndiir buy njamoon foofu dina neex si nun

ànd akax itam ay kilifa ki ci sama wet muy sëriñ Yoof Baye Yuusu ñu yàgg ànd ak moom itam ba yàlla dogal li mu dogal waaye ànd ko itam ak sunuy weyjur yu jigéen ak sunuy soxna ñu ràññee si suñu yàccaane jéey soxna faatu Cissé ak soxna maam Xari Mbeng ngeen xam ko ci école arabe lii Anda sunu mak itam Pam modu mu joge ba Ngor bon digenté Ngor wakam yof ken desul lolou ñong leen kay sédé mbir mi nak tollu nañu fo xamantene wax deug yalla rafet na lol ndax yalla mo wax ra'il ahda inna al ahda kana mas'ula tawajjami dañu sam ko leere kóllëre ko leere kóllëre tax ñu yëkkati lu toll ni tek leen ci sante di leen gëreum waxtaan bi nag fa tabaarakallaahu ni ko oustaz traité wax dëgg yàlla ku déglu di nga xam ne pédagogue la ndax ñëwul rek wax ñu suñ tabaski mais dafa tàmbalee si sunu maam Ibrahim ak njabootam ak fa yàlla jaaraax moom ba yegse fii li ma koy conclure le waxtaan bi mooy ndekete inna Ibrahima kaana ummatan gis nga kana ummatan bobu ne mom ak soxna ma njabotam rek representer nation leum xetu leum motax mu beug ñu joxañ ñu ñu jàng ci mom pour nan lañuy doxale société nan lañuy doxale famille nan lañuy doxale politique nan lañuy joxale économie fa tabarakallah nga def ko ci anam bu rafet waye li oustaz Ibrahim wax tamit lu jara baye xel la ndax mooy kuy tër njabootu jàmbur nga fekk ko si gétte walla fekk ko si ay fameem nga ñoddi ko dem pour rendi ko war nga fàttaliku ne bés dina ñëw yàlla soxla bon boo laa rendi njabootu jàmbur ni mu ko waxee nanga nga rendi sa bànneexu bakken ba pare boo rendee sa bànneexu bakken bu déwénee lépp lu si juunuwaat di nga ko mën a réparer loolu mooy tax société bi mën a baax kenn du ñaxtu dara bon oustaz ñoo ngi lay gërëm di la sant fa tabarakallahu ni nga ko mualaja am na solo yal nañu yàlla may dégg ak topp ñoo ngi rafetlu jataay bi di ñaan yàlla ah dootuñu ko géej si kàttanu yàlla te ni ngeen ko defee loolu moo si am solo ndax imaam Abuja loolu la waxee waatasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu wala tafaraqu boobu nag balaa am njariñ par par parloo bañ si am ku nekk naan fii laa bokk kii naan fële laa bokk bu si amee rek yàq lépp ndax li ñu bokk xablullaahi du dara lu dul shariatullah sharia boobu buñ si dugalee sunu loxo ku nekk bay sa waar si tool bi bu yagge tol bi dina set ñu def ñu am suñu euh liñ ci bëgg ci walu mbay mi ñu am suñu meññanta ñu man ko jariño ba ëlëk yal ko yàlla def wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullah